ci ñaareelu pàcc bi destination Sénégal daañu dem dëkk boo xam ne ko kosoñ ci nee ñu mësta dégg sigil ndigaale jaa ngeen jëf à tout aleykum salaam wa ngi nuyu Georges Dethié Diop docteur Ousmane Ndiaye yow euh, kilifa nga ca ANACIM di bànqaasu nguur gi ñu lépp lu jëm ci wàllu dawal avion ci civil yi. ak mm. euh, météo. ndax tey ni ñu ko waxee ci subaak léegi mooy journée internationale météo bés bi àddina gépp jagleel euh, jaww jeek alam beek yëg-yëgu tàngoor ak sedd ak taw ak ñoom seen. Mm. bala ñoo sori ginnaaw Ndakaar mi ngi amal boobaak léegi. altine ak léegi ci jam euh, ñaajo li ñuy wax neuvième forum mondial de hmm. waxtaanee ndox ci àddina hmm. euh, ndox moomu euh, manqué manqué gi ñu ciy wax ak jot gi ñu bëgg ñëpp jot ci lu ci wàllu météo lu ci météo bi bi def ci manqué manqué gi. jërëjëf Babacar jërëjëf Déthié di invitation bi ngeen ñu defal di kontaan loolu ci dalal bi ngeen ñu dalal. waaw li ñu ko waxee Sénégal kontaan nañu loolu ñuy accueillir neuvième forum mondial de ku ne ndox wax taw ku ne ndox wax euh, ndox muy évaporé te ñaar yooyu boo ko waxee rek wax météo parce que taw bi moom suñu métier ñun ci la ñuy liggéey di xool na la ñuy saytoo taw bi na lañ koy natteeg yu ni mel Euh, moo tax euh, suñu implication da ciy am solo ku ne ndox aussi wax inondation ku ne ndox wax sécheresse te yooyu yëpp aussi ci mbirum météo la ku ne ndox aussi wax ni euh, nan la ñu mën a def ba saytu loolu nga xam ni loo xam ni du lu loo xam day dax des ba faw parce que ndox mi aussi dafa dafa limité comme ni ñu koy waxee donc météo ni ñuy def ñun mooy def ay app ay prévision pour aider nit ñu def planification yu mel noonu di accompagner acteurs yi nga xam ni ñooy seddoo mbirum ndox mi te xam nga ndox dafa xaw a am lu ci xaw a nekk mooy lu ci bëri source yu bëri gisee ay dëkk yu fasantikoo ñoo koy bokk boo jëlee fleuve Sénégal rek yaa Sénégal Mauritanie Mali ak Guinée donc ñu mel noonu bu ñu ko bokkee ku nekk bëgg a def dara dafa laaj ku nekk war a xool li ngay def ba xam dëppoo naag ndox mi ni muy disponible dans le futur ou pas ci mel noonu nag ñu ci la ñuy planifier leen wax naan bu ñu demee ba deux mille trente cinq deux mille quarante taw bi mën naa mu wàññeeku yu mel noonu ak tàngoor bi yokk changement climatique yi. dégg nañ njiitu réew mi Macky Sall ci euh, ouverture forum gi muy alerte ci situation bi ndax changement climatique euh, changement climatique dafa am effet ci ndox mi. waaw ci lu wóor changement climatique muy coppite gi ñuy gis ci jaww ji dafa am effet ci ndox mi ndox mi parce que ndox mu bëri boo gisee fi mu ko waxoon sànq ci taw bi lay jógee euh, yu ni mel. te boo xoolee nit ñaa ngi yokk ñaan la croissance démographique donc demande ndox day yokk donc fu ñu jaar wax ba xam lii indi ndox mi li nga xam ni moom mooy source yi ba xam dafay yokk wala déet donc dafa am relation directe bu ñu am météo di liggéey organisation mondiale météo di xool nan lay mën a taxawoo askan wax yan dëkk ñooy amay problème ak yan dëkk ñoo doon amay problème ak nan lañ mën def ba saytu loolu ñu waan ndox mi donc météo ndox bu ñu sa question que ndox mi da ngeen ne day wàññeeku donte sax euh, inondation am na te ko wax inondation moom mooy ndox gu bëri Mhm. di indi yàq-yàq. waaw daa ñaari mbir yoo xam boo koy xool mën naa yaakaar ni dafa juyoo waaye juyowuñu mhm. mooy euh, ndox mi moom dafay wàññeeku loolu la ñu gis ni si projection climatique yi ñuy def euh, dañu gis aussi mooy ndox mi ni muy ñëwee mooy différent cest à ndox mu du jékki-jékki rek di ñëw normalement dafay jékki-jékki ñëw ñëw bu waame muy inondation jékki-jékki mu toog lu yàgg daal di ñàkk donc boo xoolee ndox mi yëpp da ngay ne effectivement boo xoolee boo calculer total bi da ndox mi dafay manqué waaye ni dikkee mooy tax ba inondation yi di am ak ni muy dikkee mooy di nga xam ni loolu la askan bi dul bëgg mooy dikk dikk bu am solo ba benn période quelques fan inondation mu metti jékki mu toog juróomi fan bu fukki fan du taw mu nekk loo xam ni day indi problème ci gàncax gi donc euh, effectivement dafa am lënkaloo ak changement climatique ak euh, ndox mi Hmm. Euh, nawet bi ñu weesu buñ ko dee xayma ci Sénégal euh, taw bi daa manqué wala euh, doyoon na. waaw ci gët bërëb yu bëri taw bi dafa manqué boo gisee dafa manqué mu béykat yi sax boo gisee ñu ngi koy ñu ngi koy saytu ñu ngi koy wax dafa manqué ci gox yu bëree bëri bëri ci Sénégal donc loolu la ñu noté waaye tamit li ñu noté mooy tëri tërinu ndox mi ñu ndox mi di ñëwee comme ni ko la wax sànq mooy boo xool dëkk yu bëri muy grande ville dañoo am inondation yu méttee métti yoo xam ni presque booy xool ci ñaar fukki at yi mën naa wax aw gisuñu ko woon donc noonu lañ mooy bilan bu gàtt bi ñu mën a tiire ci euh, nawet bi passé mm-hmm. bi ñu dëgmal nag moom lees ci mën a séntu bi ñu dëgmal nag dëgg-dëgg xoolaguñ ko pour wax dëgg ndax euh, war nañu am benn lël bu ñu am en avril ndax euh, fi ñu toll nii dafa xaw a sori tuuti pour ñu mën a wax lu leer mais avril daal lañ bëgg a daje incha allahu rabbi pour xool ak suñuy naataangoo yi séq sayel yëpp pour xool taw bi nañ lay tëdde te incha allah bu ñu ci yeggee gi mooy daa mel ni que sedd amatul Sénégal Euh, dafa xam nga décembre ak janvier moom kenn hmm. daaw ko Euh, laam-laamee ni sax euh, dina dina dina sedd lool. Mm-hmm. demeetul noonu. Mm-hmm. Euh, février jàpp mars sax la gën a sedd decembre janvier sedd bi daa toxu léegi xanaa. waaw loolu lañ noté mooy li ñu wax rek coppite ji jamono ji ñu koy wax changement climatique français di ko wax dérèglement climatique parce que moo boobu boo ko utilisé gis léegi mooy du parce que seddaay dafa manqué du parce que tàngoor dafa manqué mais ni muy ñëwee moom mooy li xam ni daaw koon ñëwee booy xool ren booy xool décembre janvier presque amul sedd ñu ñëw ci période bi gis sedd waaye période bii nag li ko ko waral dëgg-dëgg mooy dafa am lu ñu ngelaw lu bëree bëri mu ñu jëlee la nord di ñu jox sedd bi ñu gis temps yi ak ngelaw yu métti nga xam ni war nañ def attention surtout suñu mbokk nappkat yi ngelaw yi météo joxe na alerte ba jeudi ni vraiment bu ñu mënee toog mooy li gën donc coppi coppi coppi coppite jamono ñu la ñuy changement climatique mooy li am léegi moom la gis boo gisee donc dafay toxu période yi ñu ko daan yaakaar du période lay nekk yeneen période taw na am na ñoo xam août lañ commencé seen nawet donc yooyu coppite la ñuy alerter nit ñi naan mooy changement climatique bi am te ñu war a def ndànk ci lool te dafa am fracture ndax euh, ndakaaru ak euh, ñi xaw a jege géej ñu xaw a sedd tuuti euh, wala sedd lool hmm. waaye boo boo génnee ndakaaru rek tàmbale ko sax Thiès bu la neexee. jëm hmm. biir réew mi hmm. tàngoor bi tar na lool. tey rek boo xoolee am na diwaan yoo xam ni nañ dem ba 44 degré. Mhm. ndakaaru nekk ci ay 23. Mhm. loolu nu mu mën a demee. jërëjëf Babacar yow moom xam naa yaa topp météo <laughs> dëgg-dëgg noonu la waaw parce que boo xoolee ñi ci booru géej gi dañuy subir l' influence de la mer. lu alizé yooyu ma doon wax muy vent yooyu nga doon wax jóge anticyclone des Açores li muy intéressé rek mooy ñi nekk ci façade euh, ñi nekk ci booru géej mais boo xoolee démb supposons suñu station bi nekk Koungheul am na presque record am am nay quarante quelques degré comme ni nga ko waxee quarante et un degré lañ xam amuñu koon ci période bi a nekk ci biir suuf yi am mooy période tàngoor la ñu war a jëm ñu ngi sentir tàngoor bi période Dakar rek Saint-Louis ak ba euh, ko sentir mais géej gi muy indi influence am di euh, di indi loolu loolu géej gi la mooy mooy mooy waral loolu walu ba dérèglement climatique bi ni nga ko waxee hmm. sedd bi hmm. euh, inondation hmm. est-ce que yooyu yëpp am na li mu mën a jur waaw li mën a jël koy bëri na <laughs> ku yow la ko waa plan Orsec <laughs> li mën a jël bëri na euh, xam nga ñun boo xoolee suñuy économie ak suñuy jumtuwaay dafa amul doole lool ba du ñu mën a am na ñaar naan résilience mën a dëkk yu mel noonu boo xoolee inondation tey boo xoolee suñuy dëkkuwaay booy xool ni ñuy planifier ni ñuy dëkkoog l'exode rural yu mel noonu boo ci dollee nag jékki-jékki amee inondation yoo xam mooy ñëw donc suñu ville yi ak suñu Euh, environnement bi du mën a dëkku ndox moom di ko mën a jël ni mu waree parce que yoonu ndox yu bëri fàtt nañ ko léegi ngir nit ñi dëkkee gi mel noonu moom mooy tax muy am solo jeexantal yi mooy ay feebar yoo mi toog lu yàgg-yàgg parce que am na bërëb yoo xam sax booy xool ndox mi di fa jóg gëj booy xool a yéeg di indi gis di indi tamit sécheresse tamit day indi ko gisee nawet bi daaw boo gisee sax am na ñoo ne am nañ nawet entre guillemets mais mu tëddee moom mooy tax ba sécheresse yi mooy ñëw ci période période yi nga xam gi mooy indi euh, problème yi vent fort yi ko ñu ngi euh, mastaw suñu mbokk moo li nga xam amul nañu ay yu mel noonu mooy phénomène extrême yi ngay gis ni mooy ngelaw yu métte métti yi am ci géej yooyu daal mooy indi ay jeexintal yu baree bëri te booy xool suñu économie lu ci gën a bëri ci ni mu wéeru majeure partie population bi li ñuy def bokk mooy mbirum mbay ak mbirum sàmm ak mbirum euh, nap te yooyu yëpp booy xool dafay lié ak mbirum climat ensuite boo indee répercussions sur le plan économique donc dafay indi yeneen yoo xam ni mooy indi ay problème donc booy xool bu baax a baax am na ay jeexantal yu bëree bëri ci suñu économie ak ci ci askan wi. mais euh, seetlu nañ ne euh, wàllum changement climatique wàllum dérèglement climatique euh, liñ koy waxtaanee ci àdduna dafa dafa jéggi dayoo sax. Hmm. ñu ngi alerter. Hmm. lan mooy ampleur wi ci suñu réew Sénégal. waaw dañ ci war a waxtaan lu bari parce que booy xool ñëpp la soxal parce que atmosphère amul amul amul frontière dëkk yëpp la soxal moom moo tax te xam nañ ni réellement mooy liy ñëw futur léegi li muy am ampleur suñu suñu suñu dëkk waxoon naa ko léegi mooy suñu économie ni mu dépendre ci euh, ma nawet booy xool mbay mi majeure partie quatre-vingt-dix pour cent mbayum nawet la donc booy xool dafa dépendre directement yenn maladies yi ñu am muy paludisme ak yu bëri yoo xam ni à transmission vectorielle maladies yi dafa lënkaloo ak euh, mbirum euh, changement climatique mm. booy xool aussi ñaan avancé de la mer muy géej gi nga xam ne moo ngi ren di indi problème yu bëree bëri ci tourisme non seulement suñu plage yaa ngi dem non seulement suñu infrastructure yu bëree bëree bëri ci booru géej gi la nekk dafay dem te booy xool toutes les grandes villes Saint-Louis Dakar euh, yëpp ci booru géej gi la nekk Kaolack donc problème noonu ak li ñu naan salinisation de terres booy xool diggante Fatick ak Kaolack booy xool boo jógee Fatick dem Kaolack boo xoolee sa droite dafa mel désert parce que ndoxum xorom siy ñëw mooy tax ba garab gàncax gi ci mën a dem donc yooyu yëpp dafa am ay jeexintal suñu économie muy changement climatique boo xoolee mais xam nañu lépp mu ngi tukkee ci réchauffement climatique ak hmm. itam agression bi ñuy agressé suñu environnement hmm. euh, est-ce que euh, réchauffement climatique bi ci Sénégal jéggi na dayoo wala ban niveau la nekk jéggi na dayoo moom jéggi na dayoo parce que ñu ngi koy sentir du bëree bëree bëri ci suñu économique suñu lépp booy xool ba xam production gaz à effet de serre ak jeexintal yi muy def ci économie ak ñi impacté gis nañu la majeure partie des ñun duñ ci dara réew yi am doole yi ñoom ñoo ñoo soppi ñoom ñoo ñoo def ay ñooy taxaw taxawaay yu jaaduwul ba yëf yi di soppeeku waaw duñ ci lu bëri laay wax parce que bu ñu duñ ci dara tamit am na lu ñuy am na ñuy def am nañ ci responsabilité mais tuuti la voilà lox nga dëgg tuuti la parce que booy xool boo jëlee ñaari pays rek lu mel Amérique 60 pour cent production yi ñoo koy def ñaari pays donc Afrique li muy def bëriwul te Afrique moo ci subir lu bëree moo tax ci réunion yeeg discussion yi dañuy fexe loolu di ko indi naan vraiment les pollueurs payeurs moo ko mën a noonu mooy ñi xam ne ñoo ko sooxe seen développement moo tax ba tey lii ñu am ñu am ko ñu mën fexe ba dimbali ñu moo tax am na ay fonds ñu créé ay fonds vert ay fonds du climat hmm. te booy xool ak projet yu Euh, si biir loo xam ni sooke wuñ ko donc war nañoo mën a fexe ba dimbali ñi ba ñu mën ci euh, mucc daal. bu ñu bu ñu delloo ci lu soxal sénégalais yeeg seen dundin ak dëkkin yaa ngi tudd sànq napp bi. Hmm. gis nañ fi tund yu bëri ci Sénégal nit ñi leen sonal mooy napp. Hmm. ndox mi jóge ci suuf si euh, yàq seen i miir yàq seen i dëkkuwaay. Hmm. lan moo ciy saafara nit ñi am na luñ ci mën a def wala nguur lu mu ci war a mën a def ba loola bañ wéy di lor nit ñi. waaw am na lu ñu ci mën a def euh, lu baree bari parce que booy xool napp bi li koy indi rek lu ci gën a bëri du moins moom mooy euh, taw yu métti yi muy taw xam nga mooy indiwaat napp bi di ko di ko di ko euh, di ko di ko yéegalaat li ñu may def benn mooy pomper napp bi li ñu may def mooy mu defar aussi suñu yoon yi ndox di jaar bañ koo fat loolooy problème bi gën a rëy moom nu ñu koy pomper c'est-à-dire tey euh, forage yeeg yëpp dañuy dañuy dañuy ndox forage xam nga boo defee ay forage yu bëri ah. donc forage yëpp dañuy day xëcc ndox mi waaw hmm. donc loolu lu am solo donc bu ñu defee ay forage yu bëri supposons forage yi mën mais problème bi mooy des fois bi dafa polluer mooy problème bi beneen problème bi ñu am ndax agriculture bi ñuy def ci ndax ndox zone yi nga xam ne napp bi def effleurant zone yi moo gën a neex defu mbayum euh, dër donc. Euh, ak foos yeeg ñoom seen. ak foos yeeg ñoom seen tamit donc ñu war cee góorgóorlu donc li mooy fexe ba égout yeeg yëpp ñu defaraat bu baax surtout yoon yi ndox daan parce que amoon na ay yoon naturel yu ndox yi daan jaar mais léegi dëkkuwaay na ba fàttanu yoon yooyu moom moo tax euh, mu indi ay sooke. mais nag gouvernement baa ngi def ay effort parce que boo xoolee zone yu bëree bëri ñu ngi commencé defaraat égout yi defaraat ay tali yu mel noonu te yooyu day fexe ba écoulement bi mën a mu waree. Euh, ren gii nii ci euh, journée euh, mondiale météo ngeen di wax waxi ba ay alerte précoce yu ni mel yan ñooy activités yi nga xamante ne ñoo war a sóobu ci mbir moomee ba ñu egg ci la nga xamante ne moom lañ bëgg. waaw tey xam nga chaque année dañuy choisir benn thème di xool li nga xam fii. askan wi toll ñu waxtale benn thème bu ñu mën cee waxtaane tey dañu ne alerte précoce euh, action rapide action rapide waaw mooy fexe ba Euh, tey yaakaar nañ ni météo développé na science développé na développé nga xam ni am nañ gaa ay prévision am na am na dëkk yu avancé dëkk yu avancé wul mais ni ñu bëgg a fexe rek ba prévision yi askan bu ñu ko mooy fexe ba supposons tey bu météo daal géej gi dafa sàmmaraax na ngeen moytu ñu fexe ba nappkat yi mën a jot ci information bi ñëpp mën a jël seen jumtuwaay ba mën a dem tey bu météo ne saison bi ñëw ndox bi dafay wàññeeku ñu xool nañ mën a dimbalee baykat yi ak ay assurance agricole yu mel noonu ba ba mën leen a gaañ aujourd'hui météo nañ attention am na taw bu fort ay dënnoog yu ni mel ñu mën a fexe ba garder jur gi garder garder xale yeeg yu mel noonu donc yooyu daal lañu mën a dañu bëgg a fexe ba nit ñi mën a jël information météo ci seen i planification nit ñuy doxale ñu mën ci intégrer information météo sur le plan macro mooy tey état yi ni ñuy tabaxeeg ñuy def lépp ñu xam ni am na changement climatique bi am am nay tendance yu ñuy wax ñu aussi góorgóorlu ba tenir ko en compte fexe ba communauté ak développement local mën a jël information boobu aussi mën ko utiliser ci nit ñuy euh, doxale seen i seen i activité mais mais responsabilité état ak nit ñi Euh, xoolal léegi fépp lañ tabax lépp béton la ay moo la ki ciment euh, sóoraalatuñ euh, jëmbat garab wala garab yi ñu fa fekkoon ñu daaneel ko tabax loolu itam du du régler problème bi. waaw loolu moom benn mbir la bu ñu constaté vraiment gis nañ ni mën na war nañ sensibiliser nit ñi parce que je pense sensibilisation lu ama am solo la pour nit ñi mën a xam ni lépp lu ñuy wax du action gouvernement mais action ku nekk la da nga war a changer sa comportement. mousse plastique yi ngay yor ni ngay dëkkee ni ngay sànnee mbalit meeg ak surtout li ngay wax mooy vraiment jëmbat garab xam importance su garab ci environnement xam ni fépp foo ñëw di fa dëkk ay garab ñoo fa nekkoon en général ñu dindi ko ñëw tey def fa place dëkkuwaay donc nit ñi mën nañ góorgóorlu ba fexe nan lañu mën a jëmbate garab bàyyi aussi espace vert bàyyi espace vert bàyyi yoo xam ni classé yu mel noonu donc yooyu am solo donc euh, l' aspect environnemental donc veille environnementale li xam lu ama am solo la ci développement su suñu yi ñu mën cee tenir compte bu baax a baax xam ni dafa am impact direct aussi aussi sur euh, changement climatique. Mm-hmm. Euh, sànq wax nga ko lu jëm ci wàllu service yi nga xamante ni yéen a ngi koy euh, joxe euh, xëy na nappkat yi ñoo ci gën di ñoo koy gën di utiliser donte sax y a des y au niveau des pêcheurs ndax wàllum tradition mm. mais est-ce que yeneen i secteurs yi mm. ñu ngi ñëw ci yéen ngir jot information jëm ci wàllu météo ngir prévenir yenn yi waaw comme ni ko Babacar waxee rek ñu nag aviation ñoo nekk ensemble ah. donc aviation mooy suñu premier secteur parce que avion moom buy daw il faut mu soxla information climatique ngelaw léeg poussière beeg yu mel noonu alhamdulilah loolu def naa dafa jéego yu mag a mag a mag aujourd'hui rarement ngay dégg accident avion beneen bi des mooy tourisme xam nga tey touristes yi bu ñuy ñëw ci dëkk dañuy xool ba xam dëkk bu tàng la ensoleillement nan la climat yu mel ne mel te ensuite day am répercussion ci animaux yeeg ni ñuy vivre picc yeeg yu mel noonu ak seen i activité balnéaire parce que tey dañuy dem plage wala dañuy toog wala dañuy dem visiter Niokolo-Koba ko ce que dina taw ak yu mel noonu donc suñuy partenaire stratégie la ñu jox information beneen bi ci des mooy suñu mbokk baykat yi tey xam nañ ni mbay mi comme ni ma ko waxee woon nawet la mbay ne nawet war ndox donc kañ la ñuy ji surtout gis nañ perte yu bëri yoo xam ne dañ koy am ci rendement mooy li ñu naan faux départ mooy premier taw bi ñëw mu taw suuf si tooy. justement on a l'impression que euh, baykat yi duñu utiliser à bon escient euh, information yi ñu dem ji gerte. waaw des na parce que ñu bëri ñuy bay dañuy bay bay traditionnel. Mhm. donc moom maam li fi bu tawee rek suuf si tooy dem bay yu mel noonu mais ñu ngi continuer sensibilisation bi li ñu bëgg rek mooy ñu sensibiliser encore aujourd'hui li ñuy wax mooy agriculture intelligente face au climat mooy mbay mi tey mënuñu cee génn mbirum jaww jeeg mbirum taw mi. Ah, suñu correspondant Ibrahima Diabakhate mi ngi ñuy wax léegi ne boori deux du matin sànq sànq am na lu mel ni aw xiina ku taw su wadd su ndaw kii dugg loolu de xanaa loolu de du nawet xanaa. non loolu du nawet <laughs> du gis nga sedd bi ni mu nekk ni en général ci ay Europe lay jógee di ñëw donc ngelaw lu sedd loolu di ñëw des fois buy dajeeg cóola bi muy humidité bi des fois mooy indi ay taw yooyu ñu koy ay bruine taw yu ndaw ndawaan yu mel noonu. dafa naa mm-hmm. loolu la war a nekk. Ah, am na am na laaj bu may laaj nag man nag dañ maa yóbbante rek xam damaa weex dunk <laughs> koor bi ah dina tàng waaw <laughs> keroog bi ñu ma ko doon laaj naam est-ce que seddaay bi nekkoon na ba ci koor gi <laughs> ala kulli xaal donc waaw tàngoor moom dina ñëw incha allah parce que lii période transitoire la transit euh, transition la transitoire boo xoolee ñu ngi ci ab sedd dem ci tàngaay en général day am yu mel nii booy xool seddaay bi dina ñëw temps yi na arrêté waat tàngoor bi ñëwaat yu mel noonu mais en général euh, dinañ jëm ci période tàngoor incha allah ci euh, ci koor gi mais bu ci dogee incha allah dinañ joxe ay prévision prévision yu <laughs> Euh, mu ñu rek jërëjëf euh, <laughs> docteur Ousmane Ndiaye bu ANACIM ñu ngi lay gërëm bu baax ñu fàtta ni foofa ca ANACIM yow lañ fa denk euh, lépp loo xam ni dafa soxal wàllu exploitation météorologique ngay point focal groupe d' experts intergouvernemental sur l' évolution du climat GIEC fii ci Sénégal. jërëjëf Baba jërëjëf journée météo internationale tey la. Mm. jërëjëf Georges Ziar Fati ak ni mu toogal. <laughs> jërëjëf Babacar maa lay euh, ziar di nuyu également sunu confrères yi nekk foofu ca Médina rajo Futur Média immeuble El Hadj Elimane mu nekkoon euh, RFM euh, matin ak seen invité di fàttali ne mun ngeen jàpp ba te RFM ci 94 point ci Ndakaaru ñu ñëw ci ñaareelu pàcc.